xale yeeg mag ñeeg paa yeeg ñëpp di jël gaal gi di dem loolu c'est pas normal ñi yor réew mi war nañu waroon nañu taxaw taxaw koo xam ne nii doon ne ci réew mi bëgg dem fen mais parce que boo bëggee soo soo soo nekkee ci réew mi bëgg dem feneen rek fa fa nga nekk moo neexul bu réew mi neexoon xale yi duñ dem nekk ci kër yeewoo ci kër war a faj fajoo war a def defoo mais fa nga futi fa nga wuti foo lay boo demee fee di di nga koy def c'est pas normal. waaw c'est pas normal moom damay commencer rek d'abord ci li nga xam ne mooy euh, la population sénégalaise ci wàllu mbalit d'abord li nga xam ne ñëpp lañ ciy teg seen gët euh, mu nekk loo xam ne tey vraiment gis nañu ne tey dëkk bi euh, da ngay gis koo xam ne dafay naan ba pare ndox ci biir oto sax dañ koy gis naan ba pare rek sànni lekk ba pare banaana sànni loolu yëpp dañ koy gis te loolu c'est pas normal. waaw homme de tenue aussi man ci lay gën a wax nañ dimbali chauffeur yi sonn nañ dangay gis chauffeur buy góorgóorlu man keroog buntu Pikine dama fa gis action boo xam dafa ma naqari ba ci kanam yàlla gendarmerie bu ñu gën la taxaw ku droité mu jël sa permis na la avancé yaa ngi dégg da ngay gis tata bu taxaw yëpp ay client xamoo yow yan client la mu jël permis am attesté wu la bàyyiwu la nga dem yaa ngi dégg rangal la fa plus de vingt et quelques oto gars yi topp ci ginnaawam bu avancé ba ci kanam dëppaat nit ñi topp ko mais loolu dafa sax rafetul tey leen bër bu ko neex mu dikk leen fayloo ay mille francs yoo xamante ni amul russi amul dara la koy def Euh, c'est pas normal tamit boo yi di dem ci gaal gi di dee ci géej gi keroog maa ngi gis ñu wax di eh, kii ministre bi ministre bi di wax man ay ñu ñun état bi nekk fu di wàññi ay néew kon du normal que ni ministre bu taxaw di wax loolu tegu ko fenn parce que ñii dee ci géej gi du doomu président du doomu ministre doomu député ñun la ñun baadoole yi te ñun wut pour teral suñuy waajur moo tax ñuy dugg ci géej wala def lu leen neex. loo xam ne c'est normal xam muy lan muy ministre espagnol bi Zapatero si jamono yooyu noonu joxe na xaalis bëri état état bu Sénégal mais ana xaalis boobu doo dégg ñu wax ci c'est pas normal doo dégg mukk ñu wax ci. Zapatero laa Zapatero dama ko xam ba xam dama ko maîtriser ba xam parce que dafa dafa développé xaalis bëri ay ay mille ay ay mille ay ay euros yu bëri jox ko état bu Sénégal bi ñëwee fii xam nga leen jox benn sandis ak benn dix mille francs loolu c'est pas normal. Euh, fan yi dëkk moom métti na trop surtout nag ñun taximaan yi nga xam ne sax ñu ngi ci tali bi barrage yi métti na yoon amut ndax da ngay da jaar yoon sax bi nga xam ne normal na mais da nga ñu fekk policiers yi ñëw na la il faut nga wëri te duñ duñ ci waxee ci waxee yoon ju neex ndax cas boobu dal ma démb ma jógee beneen bi di ñëw kii hôpital Fann ba ñëwee dama war a def goos pour yóbbu sama client bi euh, point 1 ma ñëw mu ne il faut ma continuer rond point euh, bi université foofu tamit xat ba dee te client bi mu yàkkamti woon waaw te xaw ma client bi mi doxee te xam nga loolu tardel na ko tardel ma te loolu a métti mooy si yi ñu nag yi nañ ba ñi ñoom ne bu ñu si xool seen intérêt kese ba loraa la ñu ñun ndax ñoom nañ xoolee pour oto yi mën a dem rek pour ñu nga nga parce que war mooy wóorloo fii ba rond euh, euh, université te moo da jëm point 1. des fois da ngay ngay gis nit jël mbuus def ci loo xam ne si ni rafetul ay neefere wala affaire yooyu sànni ko des fois nit ñëw ci voie publique def fa loo si ni jaaduwul loo xam si ni dañ koy tere te lu lépp loolu lépp ñun ñoo koy dindi da ngay gis tey ko nekk ci immeuble jël mbalit wàccee loxoom sànni yaa ngi dégg mu wàcc ba ci suuf xamul si fan la ko teg yoonam nekk ko si parce que intérêt lay sàmm quoi mais sàmmul intérêt population bi te li gën mooy nit ki boo yoree mbalit soo ko mënul wàccee sax mën nga jël benn booy na ko yéegal mu wàcceel sa mbalit nga jox ko même ne mu wàcceel la ko sànni la ko parce que loolu lépp avantage la boo xam ne ñu ñëpp ñoo koy bokk parce que xam nañ ne set dafa bokk ci wér-gu-yaram dara normal dara normal dara mu ne ma fii mooy normal yow ci dëkk bi nga dëkk Sénégal nga ne ma fii normal ne ma lii moo normal même pont yi defar da ngay gis pont boo xam pont bu gàtt gàtt boo moo xam ne yow non oto bu ndaw sax mënu faa mënu faa jaar pont pont non doo xam yow ñii ban façon liggéey la ñuy liggéey doo xam ban façon liggéey lañ li pont yi da xool pont bi nekk fii bu nekk seera bi defar fii pareegul xool pont nu mu gàttee nga xam su ma tax yéeg sama loxo ni jot ko mais am na yoo xam mënuñu fa jaar mais ñoom li ñuy liggéey dañu liggéey pour pour pour pour ñoom pour man maa ngi liggéey maa ngi mais loolu baaxul da liggéey pour pour c'est pas normal da liggéey pour loo xam ni bu beneen état ñëwee xam ni lii moo mu mën a dund ba 40 ans 50 ans ñu la koy xoolee même ñu la koy xool naan diw moo fi defoon lii mais liggéey loo xam du am sax 2 ans c'est pas nañu yërëm jaamu yàlla yi nañu yërëm jaamu yàlla yi nañu yërëm doomu aadama yi nañu yërëm nit ñi nit ñi sonn nan nañu leen yërëm